mooy Sénégal gi Ousmane Sonko fen ba ñaar fukki nit faatu ba fanweeri nit faatu ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ak juróom benn bëkk démb loolooy débat bi ndax dama ko bañ wala ko c'est problème en tout cas ku ñu ponkalum politique mu ñu woo xam ne dañ laa waroon nga dóor téeméeri yar yoon ci ci diffamation ñu waroon laa rey ci sëy gone jigéen joo tëkkul ko ku bañ dagan na ndax bu lislaam doon dox Sénégal ba nga ni rey nañ ko nee nañ avant même même euh, yaa dox ba ñu dàq ko fu ma nekkoon. loolu kon baax na. avant tout balaa may wax dara sa vidéo bi xam nga kan moo ma ko yónnee Amine Ndoye dama koy wax nànk pour nit ñi bañ koo dégg Moustapha Diakhaté yaa mën a duul Moustapha Diakhaté yaa ñàkk jom yow amoo jom guddi amoo jom bëccëg amoo jom ci kaw amoo jom ci suuf amoo jom gauche amoo jom droite. yow nangu naa ñëpp taxaw wax ci usmaan Sonko lu bon ba mu des yow yow yaa dàq duul usmaan Sonko yaa gën a ñàkk jom usmaan Sonko yaa gën a caga Ousmane Sonko yaa gën bëgg jigéen Ousmane Sonko yaa gën a ñeme tëju ak ay jigéen ci néeg ko Sonko gis nga mag bu réew day moytu ay xale yu ko xamal ndax dañ lay weer yow ba ci démmoo njaay tubaab jalaaw la nga fa def wala danga koo fàtte wala dangaa jàpp ni kenn du am fit ñëw ci réseaux yi di la di la ko waxal désolé je disais wala dangaa jàpp ni kenn du am fit ñëw ci réseaux sociaux yi di la ko waxal yow duulkat nga caga nga yaa gën a bëgg jigéen Ousmane Sonko yéen seen genre yi mënuñoo bëgg Ousmane Sonko parce que da ngeen di sàcc xaalisu sénégalais yi dem di ko tuur xale yi jigéen ñi ñetti xale yu jigéen ñoo la teg diil jël la jël si yow xaalis bu bari mënoo ci dara caleçon xuuxal jekk nga génnee ci piscine ba dangay noppi bàyyi Ousmane Sonko ba sëy dossier say dossier dinañ ko traité dangay def nànk rek Ousmane Sonko mook yow du combat yaak moom bokkoo leen sax c'est intëkkalable yow duulkat nga caga nga yaa gën a bon ci lu yàlla sàkk ci ginnaaw sëriñ yi ngeen di mbubboo di jël turu sëriñ Touba bi di ko mbubboo yéen sëriñ Touba dafa rus sax xam genre nit ñi mel ne yéen man lan mooy problème bi li leen dul arrangé mooy Sonko nekk président de la république Sonko usman Sonko incha allah dina nekk président de la république seen lii baasi na leen parce que xaalis bi ngeen di sàcc gratuitement te dara du leen ci fekk liñ leen xamal dafa bëri liñ leen xamal dafa bëri torop donc ñëpp war na war nañ toog di xas Ousmane Sonko bu sell mi su fi yéen jëntee ñii yore ay kayitu góor jigéen nekk ci internet bi di saaga Ousmane Sonko te Ousmane Sonko ñi koy saaga ñëpp moo gën seen ndey gën seen baay gën seen dëkkandoo gën képp ñépp ku takk ci yéen ngeen koy saaga kii yàlla moo ko bëgg kontewul ci benn sénégalais bu naa fekk pour pour mu koy bëgg soxlawu ko sax ñun bëgg nañ ko ba pare te loolu kese doy na ko def nga la tout pour dàqlu ko fu muy liggéeyee ba ñu dàq ko mais dàq boobu wàññiwu ko dara daf ko gën a yokk wala ngaa jàpp ne woon soo duulee say duul ba mu tàng bañ dàq Ousmane Sonko Ousmane Sonko day torox nax nga sa bopp yow yaay kii torox yow yow. <laughs> barke alxuraanu am na ñoo xam ba tey dañuy nelaw. billaay wallaay yeewoogu maanaam réew mi man man jeunesse réew bi jeunesse jeunesse bu Sénégal laa yëre maanaam bu ñu demee ba man dof bi man. man kay rek kan moo ma gënoon a ñàkk fayda kan moo ma gënoon a wayadi bu demee ba man ma yeewu ñu bari di nelaw man damay jaaxal ba tey sa ma de man kenn gënu woon maa ñàkk fayda demi soirée demi làmb bëre taxawaalu werante xuloo alxuraan karim Sonko bu amutoon xuma fan laa jëm fan fan réew mi fi nekk waxuma dara mais personnalité bi nga def si man réew mi ñëpp ma daw maanaam dëkk ak samay moroom ñu may nuyoo ñaari loxo yow yaa ma ko defal barki alxuraanu karim sooy booy dana coos eh, kay mais léegi booy ñaari loxo lan may joxe boole ko si jot dama tànk yi si suuf barki alxuraanu karim jigéen ñi ma manqué maanaam jigéen ña ña ma tegoon sa kaw foog ni méritowuma leen léegi fi ne ñoo topp sama ginnaaw maanaam sama pierre laa laa yor ku wax man la damay focus lu mën na bante focus hmm. maanaam tabaski ji nag nan leen si wax ma ne imaam yi yéen ñi nga xam ne ay imaam ngeen ci ngeen war a xutba si tabaski bi taxaw si mimbar bi ma ne li ngeen war a wax xam ngeen ko imaam yi ne senegal nag yépp laa wax dëgg la la ngeen ñu daan wax si tabaski ji xam nañ ko mais xutba ren bi danoo bëgg mu gën a dal mu dal gi mooy jaay doole gi nekk ci réew mi ab jullit dëkk ci réew mi juddoo fi yaroo fi màgga fi doon jullit nag laa la wax jullit piir mimbar yooyu ngeen di taxaw bu ci taxawoon li ngeen di wax da koy wax ni ngeen koy waxee dëkk ci réew mi juddoo fi yaroo fi màgga fi xam nga ñu koy jaay doole di ko teg lu metti di teg lu mett ci ak njabootam ren tabaski ji ku xutbawul si imaam bu xutbawul si loolu barke arxuraanu karim war nga yàlla wallaay asim a wax nga yàlla jaay doole gi ni réew mi wax leen si ca bàyyi buñ waxee ngeen di jëli réew jàmbur naan ngër li am si si kenn ku ne sa paanu mbalit doy na la wax leen li si réew mi xutba ren yi ñun ñëpp ñu ngi ubbi suñu bët yi di xool ñu ngi ubbi suñu nopp yi di dégg yéen may dégg jaay doole gi nekk si réew mi wax leen si ca wax ci aaye boroom yi li yàlla wax si toroxal doomu aadama yi ak jaay doole doomu aadama ak yàq su gor loolu lañ leen di xaar xaaruñu leen si leneen waaw kay voilà na ngeen fi ñëw ñemee ah, imaamu nervi yi nag yéen yen yéen a tax may wax imaamu nervi yi yéen a tax may wax yéen waaw